rom rom sar wàll ci lin jiin di bataaxal bi yàlla may pool mu bind ko waa rom man pool jaamub kiristu yeesu maa leen di bind bataaxal bii yàlla woo na ma ma nekk ndawam sas ma liggéeyu xamle xebaaram bu baax bi xebaar bu baax boobu yàlla dige woon na ko bu yàgg jaarale ko ci yonentam ñu def ko ci mbind mu sell mi di xamle mbirum doomam yeesu kirist sunu boroom lu jëm ci meloom ci àddina ci askanu daawuda la jóge waaye lu jëm ci xelam mu sell doomu yàlla la ndaxte ndekkiteem nekk na firnde ju ràññeeku ne moom la te moom kirist tàbbal nanu ci yiwu yàlla def nu ay ndawam yónni nu ci biir xeeti àddina sépp ngir ñu gëm ko te jébbalu ba màggal turam te ci ngeen bokk yéen ñi yàlla woo ngeen nekk ci kirist yenn ñi dëkk rom ñépp yéen ñi yàlla bëgg te woo leen ngeen nekk gaayam yi sell ne leen yàlla sunu baay ak borom bi yeesu kirist may yiw ak jàmm kon nag li may jëkk a wax mooy lii sant naa yàlla sama boroom jaarale ko ci yéesu kirist ngir yéen ñépp ndaxte seen ngëm siiw na ci àddina sépp bët bu set maa ngi leen di boole ci samay ñaan yàlla seede na li may wax yàlla mi may jaamu ci sama xel ci xamle xebaar bu baax bu doomam te li ma koy faral di ñaan mooy lii bu soobee yàlla na ma ubbil bunt ba ma mën a ñëw ci yéen ndaxte bëgg naa leen a gis lool ba indil leen barke bu jóge ci xel mu sell mi ndax seen ngëm gën a dëgër maanaam ma nekk ci seen biir te nu dimbalante ci sunu ngëm ndax man itam ma gën a am doole mbokk yi dama bëgg ngeen xam ne xalaat naa leen a seet si ay yooni yoon ngir meññ njariñ ci yéen ni ma ko defee ci yeneen xeet yi waaye ay téq-téq ñoo ma téye ba léegi am naa warugar sama diggante ak ñépp muy ni jàng ni grek yi muy ñi jàngul ni barbaar yi ñi bari xam-xam ak ñi bariwul xam-xam li aju ci man nag jekk naa ngir ñëw xamal leen xebaar bu baax bi yee nit waaroom ndaxte awma benn werante ci xebaar bu baax bi may waare ndax mbirum yàlla la mu làmboo dooleem ngir musal képp ku ko gëm mu yewut ci bu jëkk mbaa ki dul yewut ndaxte xabaar bii day wone ni nit mën a jube ci kanamu yàlla sukkandikoo ci ngëm rekk tàmbalee ci ngëm yem ci ngëm moo tax mbind mi wax ne ku jub ci kaw ngëm dinga dund merum yàllaa ngi feeñe asamaan wàcc ci nit ñi ndax seen weddi yàlla gépp ak seen jubadi gépp ñoom ñi suul dëgg di topp lu juba di ndax li nit mën a xam ci yàlla leer na ci seen xel ndax yàlla won na leen ko ndaxte ba àddina sosoo ba tey mbiri yàlla yu nëbbu ya maanaam dooleem ju sax ja ak meloom wu kawe wa feeñ nañu bu leer te biir ñépp ci yi mu sàkk ba tax bunti lay yépp tëju nañu ndaxte bi ñu xamee yàlla taxul ñu màggal ko ni mu ware mbaa ñu sant ko waaye ñu daldi réer ci seeni biir yi xalaat yu mujjul fenn ba tax seen xool gumba ba lëndëm ka ruus ñu teg seen bopp ni boroomi xel fekk ñu ñàkk xel lañu woon toxal nañu ndamu yàlla aji sax ji wuutal fa nataal yi nit ku dul sax moom ak ay picc ay rabi àll mbaa yuy raam moo tax yàlla bërgël na leen ci seeni bëgg-bëgg ñu sóobu ci ñaawteef di jëflante lu gàccelu ci seeni cër toxal nañu dëggu yàlla tëral fen di màggal ak a jaamu mbindeef ba faaleetuñu sax aji bind ji yelloo cant ba faaw amiin loolu moo tax yàlla bërgël na leen ci seeni bëgg-bëgg yu ruslu seeni jigéen sax dëdd nañu li jekk soobu ci lu jekkadi ñoom ak seeni moroom noonu it góor ñi bàyyi nañu li jekk ci seeni cër maanaam ànd ak jigéen bay am ay bëgg-bëgg yu tar ci ànd ak seeni moroom góor di defante ak góor li warul ñu di jot seen peyu réer ci seeni yaram ginnaaw xam yàlla soxalu leen yàlla it bërgël na leen ci seen xel mu bon moomu ñu sax ci jëf yu jekkat yi seen xool fees na ak lu jubadi lu bon bëgge ak coxor duñu xalaat lu dul kiñaan rey nit xuloo njublaŋ ak ñaaw njort dañuy jëw di yàq der di ñu bañ yàlla te ñàkk sutura di réy réylu ak a kañu ay jàmbaar lañu ci fexe bon di bañ seeni waajur amuñu xel amuñu kóllëre amuñu cofeel amuñu yërmande xam nañu ne ñiy jëfe loolu yàlla daganal na seen dee waaye teewul ñu di ko def boole ko ak di farle ni ci sax rom saar ñaar kon nag képp ku mu mën a doon yow mi àtte sa moroom ak ñaaw njort amuloo aw lay ndaxte àtte sa moroom daan sa bopp la yaa ngi koy àtte ndax ay jëfam fekk yow itam noonu ngay jëfe xam nanu ne ñiy jëfe noonu yàlla dina leen àtte te àtteem jub na yow nag mi àtte nii def loolu te di ko def ndax defe nga ne dinga rëcc ci àtteeb yàlla ndax danga xeeb mbaaxu yàlla mi yeexa mer te di la muñal xanaa xamuloo ne yàllaa ngi lay won mbaaxaayam ngir nga réccu say bàkkaar waaye ndegam dëgër nga bopp te bëgguloo réccu yaa ngi dajale merum yàlla ci sa bopp ndaxte yàlla sàkk na bés bu muy wone àtteem bu jub bi te meram wàcc ci ñi bon bés booba dina delloo ku nekk ay jëfam ñiy góorlu ci def lu baax bëgg yàlla boole leen ca ndamam te sedd leen ngërëm ak dund gu sax dina leen tàbbal ci dund gu dul jeex waaye ñi dëgër bopp ba tangam lu dëgg di topp lu juba jubadi seen pey mooy dooni merum yàlla ak toroxte ki doon def lu bon peyam mooy tiis ak metit wu tar muy yawut bu jëkk mbaa ki dul yawut waaye ki doon def lu baax añam mooy bokk ci ndamu yàlla am ngërëm ak jàmm muy yawut bu jëkk mbaa ki dul yawut ndaxte ñépp a yem fa kanam yàlla képp ku doon bàkkaar nag te nekkuloo woon ci yoonu musaa yàlla dina la àtte ci lu yoonu musaa nga doora a sànku te képp ku doon bàkkaar te nga nekkoon ci yoonu musaa yàlla dina la àtte ci yoon woowu kon déglu yoonu musaa rekk doyul du loolu mooy tax nit jub ci kanamu yàlla kiy sàmm yoon wi moom la yàlla di àtte ni jub ndax ñi dul yewuut te nekkuñu ci yoonu musaa ñu ngi def lu yoon woowu tëral ndaxte yàlla def na ko ci nit te wone nañu noonu ne mën nañoo ràññee lu baax ak lu bon su ñu nekkul sax ci yoonu musaa di wone it ne yàlla bind na ci seen xol jëfi yoonu musaa santaane seen xelit seede na ni noonu la fekk seeni xalaat ñoo leen di tuumaal mbaa ñu leen di jégal ndax bés dina ñëw bu xalaat yu làq yi di feeñ te yàlla àtte nit ñi jaalale ko ci Yeesu Kirist xebaar bu baax bi may waare moo ko wax maa ngi ñëw nag ci yow mi ne yawut nga yaa ngi sukkandiku ci yoonu musaa ak di damu ci yàlla xam nga coobareem ndaxte jàng nga ci yoonu musaa ba fonk yëf yi gën a baax yaa ngi teg sa bopp wamatkatu gumba yi ak leeru ñi nekk ci lëndëm yaa di jàngalekatu ñi jàngul ak xamlekatu ñi xamul ndaxte xalaat nga ne yàlla jagleel na leen ci yoonu musaa bépp xam-xam ak gépp dëgg kon nag yow miy jàngal say moroom xanaa doo jàngal sa bopp yow miy waare di tere sàcc mbaa doo sàcc yow itam yow mi tere njaaloo mbaa doo njaaloo yow mi araamal xërëm yi mbaa doo sàcc li nekk ci seeni xàmb yow miy damoo yoonu musaa mbaa doo ko moy ba indi gàcce ci turu yàlla moo tax mbind mi ne yéen tax ñi nekkul yawut di suufeel turu yàlla bëggoon naa ngeen xam ne xaraf am na njariñ boo ca boolee sàmm yoon waaye boo ko ca boolewul sa xaraf amatul njariñ te itam ku xaraful tey def jëf yu jub yi yoonu musaa santaane ndax yàlla du ko teg ni ku xaraf ku dul yawut te xaraful waaye di sàmm yoon wi kooku dina la mën a àtte yow yawut bi ndaxte li ngay xam-xam yoonu Musaa ci mbind mi te xaraf terewul nga koy moy juddu nekk yawut taxul sag yawut dëggu te xaraf ci saw yaram taxul sa xaraf wóor waaye yawut dëgg ci xol lay nekk te xaraf dëggitam ci xol lay nekk du ngistal lu dëggu la te képp ku mel noonu des na la gërëm waxuma la nit ñi waaye yàlla ci boppam rom saar ñett yawut bi nag ci lan la rawe ku dul yawut te xaraf lu muy jariñ raw na ko fu nekk ci bu jëkk yawut yi la yàlla dénk waxam bu fekkee ne am na ci ñoom ñu ñàkk kóllëre ndax loolu mën naa fànq kóllëreeg yàlla mukk su ñépp nekkoon ay naafeq du tere yàlla nekk dëgg moom la mbind mi wax ci yàlla ne loo wax ñépp ànd ci te ku layoo ak yow nga yey ko su fekkee nag njubadig nit dina feeñal njubteeg yàlla lu ci seen xalaat wax ji may bëgg a wax nag léegi waxi nit rekk la maanaam ndax kon yàlla àttiwul yoon ci li muy daan ku jubadi mukk ndax su yàlla jubadi woon naka lay àttee àddina si waaye nag xanaa dina am ku tontu ci loolu ne su fekkee sama ñàkk kóllëre gën naa yëkkati kóllëreg yàlla di yokkit ndamam lu tax kon yàlla di ma teg ba tey bàkkaarkat ba di ma àtte lu tax mënunoo wax ne nanu def lu bon ngir lu baax génn ca am na sax ñu nuy tuumaal di wax ne noonu lañuy waaree waaye ñiy wax loolu ndaan gi ñu yelloo dina leen dal kon nag lu ñu ci war a wax nun yawut yi ndax noo gën ñi ci des mukk ndaxte wone nanu ne nit ñépp ñu ngi ci nootaangeeg bàkkaar muy yawut yi mbaa grek yi moom la mbind mi wax ne ku jub amul du kenn sax amul kenn ku xam fi yàlla mbaa kenn ku koy wut ñépp jeng nañu ba kenn amalatul yàlla njariñ kenn du def lu baax du kenn sax seen puta ngi xasaw ni meddum ñetti fan seen làmmiñ làggi ci njublaŋ te seeni kàddu aay ni dangaru njàngoor duñu génne ci seen gémmiñ lu dul ay moolu ak i xas ñu sawar lañu ci rey nit fu ñu jaar foofa yàqu ak musiba xamuñu yoonu jàmm te ragal yàlla sori na seen xol xam nanu nag ne lépp lu yoonu musaa wax wax na ko ñi nekk ci yoon woowu ngir gémmiñ yépp ne miig te waa àddina sépp jaar ci àtteb yàlla ndaxte sàmm yoon wi taxul kenn jub ci kanamu yàlla solom ndigal yi daal mooy wone bàkkaar waaye léegi nag yàlla feeñal na nit mën a jube ci kanamam ci lu sequl ak yoonu musaa dara waaye ba tey yoonu musaa ak waxi yonent yi seedeel nañu ko jub ci kanamu yàlla gëm Yeesu Kirist rekk a koy maye te képp ku ko gëm bokk nga ci ndaxte ñépp yem fa kanam yàlla ñépp a ba joteetuñu ndamu yàlla waaye ginnaaw Kirist yéesu dee ngir jot leen yàlla ciw yiwam mën na leen a àtte ni ñu jub ci dara wàcce na Kirist mu nekk sarax ngir yàlla baal na sunuy bàkkaar jaar ci deretam ji ñu tuur te ngëm rekk moo nu ciy boole noonu yàlla firndeel na ni ku jub la donte sax dafa muñaloon ñi jiitu jamonoy kirist ba jéggal leen seeni bàkkaar kon ci jamono jii ñu ne yàlla wone na bu leer ne ku jub la di àtte ni ku jub képp ku gëm yéesu te ba tey dëkk ci njubteem kana mën bàkku nag ci kanamu yàlla kenn lu ko waral nag xanaa sàmm yoon déedéet ngëm rekk ndaxte dañoo dëggal ne ngëm rekk a tax yàlla di àtte nit ni ku jub waaye du sàmm yoon walla ndax nag yawut yi rekk la fi nekkal ndax nekkalu fi it ñi dul yawut axakay ginnaaw yàlla kenn la ñépp la fi nekkal ñi xaraf dina leen àtte ni ñu jub ndax seen ngëm ñi xaraful it dina leen àtte ni ñu jub ndax seen ngëm xanaa kon ngëm day fanq yoonu Musaa mukk da koy gën a dëgëral sax rom saar ñeent sunu maam Ibrahima mi nu soqi ko nu mbiram tëdde bu fekkonte ne Ibrahima ci kaw kawi jëfam la ko yàlla àtte ni ku jub kon am na lu mu ci mën a damoo waaye demewul noonu ci kanamu yàlla lan la mbind mi wax ci loolu nee na Ibrahima gëm na yàlla te yàlla jàppe ngëmam ni jub képp kuy liggéey dina jot peyam te pey googu du ak may ñaqam la waaye yàlla dina àtte jub sax ki ko weddi woon kon ku wéeruwul ci jëfam waaye mu gëm rekk yàlla dina jàppe ngëmam ni njub noonu la daawuda birale barkeelug nit ki yàlla jagleel njub fekk ay jëfam taxul mu ne ñi ñu baal seen jàdd yoon te seeni bàkkaar far ci kanamu yàlla ñu barkeel lañu ki borom bi sëful ay bàkkaaram kooka ku barkeel la kon nag barkeel googu ndax ñi xaraf rekk ñoo ko yeyoo ndax ñi xaraful it bokkuñu ci axakay ndaxte wax nañu ne yàlla jàppe na ngëmu Ibrahima ni njub kañ la ko jagleel njub nag ndax lu jiitu xarafam la woon am gannaaw ga lu ko jiitu la woon ndaxte Ibrahima gëm na te yàlla jàppe na ngëmam ni njub fekk booba xarafagul te xarafal gi màndarga woon ci yaramam di firndeel ne ku jub la woon noonu la Ibrahima mën a nekk bàyyu ñépp ñi gëm ba yàlla mën leen a àtte ni ñu jub te xarafuñu sax te noonu itam la Ibrahima mën a nekk bàyyu ñuy xaraf bu fekkee yemuñu rekk ci xaraf waaye ñu am ngëm ga Ibrahima sunu maam amoon lu jiitu xarafam ndaxte yàlla dafa digoon ibraayima ak ñi naroon a soqikoo ci moom ne dinañu moom àddina si te dige boobu jógewul ci yoonu Musaa waaye dafa jóge ci njub gi Ibrahima amoon ci kanam yàlla ci kaw ngëmam ndaxte su fekkee ne ñi nekk ci yoonu musa rekk ñooy moom àddina kon ngëm amatul njariñ te digeeb yàlla dafa toxu yoonu musaa daal du def lu dul wàcce merum yàlla ci sunu bopp ndax fu yoon amul jàdd yoon du fa mën a am kon nag loolu yàlla dige ngëm rekk a koy indi ngir mu sukkandikoo yiwu yàlla rekk noonu la dige bi wóori ci ñi soqikoo ci Ibrahima ñépp du ci ñi nekk ci yoonu musaa rekk waaye itam ñi gëm ni Ibrahima gëme woon kon Ibrahima mooy sunu baay nun ñépp moom la yàlla dogal wax ko ci mbind mi ne def naa la bàyyi xeet yu bari ndaxte Ibrahima gëmoon na yàlla mi dekkal ñi dee tey wax ci lu amagul mel ni dafa am Ibrahima dafa jàppoon ci ngëmam di yaakaar fekk bunti yaakaar yépp tëju moo tax mu nekk bàyyu xeet yu bari ni ko mbind mi waxe ne noonu la sa askan di mel meli mu xool yaramam xam ni dee rekk a ko dese ndax mu ngi tollu woon ci lu ma téeméeri at waaye ba tey ngëmam wàññeekuwul mu xamit ne saarata mënatula ëmb waaye loolu taxul ngëma di jàpp ko ba muy werante ci waxu yàlla ngëmam sax di gën a dëgër mu daldi sant yàlla mu wóor ko ni loolu ko yàlla dig yàlla mën na koo def moo tax yàlla jagleel na Ibrahima njub waaye loolu lañu bind ne yàlla jagleel na ko njub du Ibrahima rekk moom wax ji nun itam ci wax jooju lanu bokk te yàlla dina nu jagleel njub nun ñi yàlla mi dekkal yéesu sunu boroom ndaxte yàlla jëbbale na ko ngir sunuy tooñ dekkal ko ngir àtte nu jub gannaaw yàlla àtte nanu jub ci kaw ngëm nanu jàpp ci jàmm ji nu am fa kanam yàlla jaarale ko ci sunu boroom Yesu kirist moonu ubbil bunt ci yàlla nu taxaw temm ci yiwoom jaar ci ngëm te it nu ngi bég ci néggandiku yàlla boole nu ci ndamam te du ci loolu rekk waaye bég nanu it ci sunuy nattu ndax xam nanu ne nattu day fedd li muñ te muñ mooy ndeyu jikko ju dëgër te jikko ju dëgër day jur yaakaar te yaakaar jooju du ay nax ndax mbëggeelu yàllaa ngi baawaan ci sunu xol jaarale ko ci xelam mu sell mi munu may ndaxte bi nu amul jenn doole booba la kirist dee ngir nun fekk danoo weddi woon yàlla kuy nangoo deyal nit ku jub yombul a gis waaye nag jombul am na ku nangoo deyal ku baax waaye yàlla firneel na mbëggeelam ci nun ci li kirist dee ngir nun bi nu nekkee sax ay bàkkaarkat gannaaw kirist tuur na deretam nag ngir yàlla àtte nu jub rawatina ne dina nu musal ci merum yàlla nun ay bañaale yàlla lanu woon waaye doomam dee na ngir jubalinu ak moom ginnaaw léegi nag xariti yàlla lanu rawatina ne dina dinañu mucc ndax dunduk doomam te sax nu ngi bég ci yàlla jaarale ko ci sunu boroom yéesu kirist mi nu jubale ak moom kon nag bàkkaar ci kenn nit la jaar dugg ci àddina indaale fi dee te dee daldi law ci nit ñépp ndaxte ñépp a bàkkaar bàkkaar kon nekkoon na ci àddina bi yàlla di laata wàcce yoonu musaa waaye ginnaaw yoonu musaa tëddagul woon bàkkaar jàdd yoon teewul nag la dale ci aadama ba ca musaa dee ngi fi woon ci àddina di noot ñépp ak sax ñi seen bàkkaar melul woon ni bosu aadama maanaam jàdd yoon aadama moomu nag moo di takk ndeeru kirist mi waroon a gane ci àddina waaye warunoo yemale tooñu aadama ak mayu yàlla bàkkaaru kenn nit kooku tax na ñu bari dee waaye yiwu yàlla ak may ginu keneen nit ka yéesu kirist yéwénal baawaan na ci ñu bari ba suul tooñ googu te bakkaaru aadama nuroowul ak mayu yàlla aadama bàkkaar na benn yoon ba tax yàlla daan ko daanaale ñépp waaye yàlla jéggale na tooñ yu bari ci dara ba mu àttee ñu bari ni ñu jub bakkaaru kenn nit tax na dee tàbbi àddina yilif ñépp ni buur waaye jëfu keneen nit ka maanaam Yeesu Kirist moo ko suul ba tax ñu bari tàbbi ci dund gu bees falu ni ay buur xanaa ñi yàlla boole ci yow mu bari te àtte leen jub ci dara fa kanamam kon nag nu gàttal wax ji jàddu kenn nit ka rekk moo waral yàlla daan ñépp noonu itam jëf ju jubu keneen nit ka rekk moo ubbi bunt ba ñépp mën a jub ci kanamu yàlla te am dund gu bees aadama moomu dafa déggadil yàlla ba yóbbaale ñu bari ñu nekki bàkkaarkat noonu itam Yeesu kirist dafa déggal yàlla yóbbaale ñu bari itam ñu jub te yoonu musaa daldi wàcc ngir bàkkaar gën bari waaye fa bàkkaar bari yiwu yàlla gën faa bari ba tax ni bàkkaar doon yilife ñépp ni buur indaale dee noonu itam la yiwu yàlla faloo ni buur jóge ci njub jëm ci dund gu dul jeex te loolu lépp darajay Yeesu Kirist sunu boroom moo ko may rom saar juróom lu nu war a wax léegi nag xanaa nu sax ci bàkkaar ngir yëwu yàlla gën a bari mukk nun ñi dee bërëc ci kàttanu bàkkaar naka lanu mën a tee sax ci di ko def xanaa dangeen xamul ne képp ku ñu sóob ci ndox ngir wone ne mi ngi bokk ci Yeesu Kirist ci deewu Yeesu Kirist la bokk bi ñu nu soobee ci ndox moomu nag day misaal ne dañu noo suul ak Kirist nu dee ni mu deeye woon ba tax nu dekk it ni mu dekkee woon ci doole yàlla baay bi te nu soobu ci dund gu bees kon nag gannaaw benn lanu ak kirist dee ni mu deeye woon kon na dinanu nekk it benn ak moom dekki ni mu dekkee woon ndegam xam nanu ne daajoon nañu kirist ca bant ba xam nanu it ne jikko ju bon ji nu judduwaale daajale nañu ko ak kirist ca bant ba te yàlla def na loolu ngir nguuru bàkkaar gi nekkoon ci sunu yaram tas nu rëcc ci dooleem ndaxte ku dee bàkkaar mënatul dara ci yow ginnaaw nag dee nanu ak kirist gëm nanu ne dinanu dekki it ni moom xam ne kirist mi dekki dootul dee mukk dee mënatul dara ci moom dee na benn yoon ba bàkkaar mënul ci moom dara te mu ngi dund léegi di ànd ak yàlla ba faw ci noonu nag yéen itam teg leen seen bopp ni ñu dee ak kirist ba rëcc ci doole bàkkaar di dund ànd ak yàlla ba faw ndax seen bokk ci Yeesu Kirist bu leen mayeti bàkkaar nag muy yilif seeni yaram yu néew doole bay topp ay bëgg-bëggam te bu leen jébbaliti seeni cër bàkkaar mu def leen jumtukaayam ngir jëfam yu jubadi waaye ginnaaw rëcc ngeen ci dooley dee bay dundaat jébbul leen ci yàlla te jébbal ko seeni cër mu def leen jumtukaayam ngir jëfam yu jub ndaxte bàkkaar dootu leen mënal dara yéen ñi génn ci yoonu musaa dugg ci yiwu yàlla lan lañu war a wax nag léegi gannaaw génn nañu ci yoonu musaa dugg ci yiwu yàlla ndax danoo war a sax ci def bàkkaar mukk ndax dangeen a xamul ne koo jébbalu ci moom te déggal ko jaamam nga naka noonu mbaa ngeen nekk jaami bàkkaar mu jëmaleen ci dee mbaa ngeen déggal yàlla mu soob leen ci yoonu njub waaye sant naa yàlla ci lii yéen ñi doon jaami bàkkaar bi ngeen déggee mboolem dëgg gi nangu ngeen ko ak seen xol bépp te ci noonu rëcc ngeen ci nootaangeek bàkkaar te jébbalu ci yàlla soobu ci njub seen xam-xam ci mbir mi soriwul moo tax ma yombal wax ji awale ko ci baat yi ni ngeen jële woon seeni cër jébbal leen ñu nekk jaami lu di ak lu bon di gën a jur lu bon noonu itam léegi jébbal leen seeni cër ñu nekk jaami njub ngeen door a sell ndaxte keroog ba ngeen nekkee jaami bàkkaar sequleen woon dara ak lu jub ban njariñ ngeen ci jële nag dara lu dul gàcce ndaxte ci dee la leen doon jëmale waaye léegi yàlla goreel na leen ci kilifteefu bàkkaar def leen ay jaamam ba jural leen sell jëme leen ci dund gu dul jeex ndaxte peyu bàkkaar mooy dee waaye mayu yàlla mooy dund gu dul jeex ci yéesu kirist sunu boroom rom sar juróom mbokk yi yéen ñi may waxal xam ngeen luy yoon xam ngeen kon ne yoon am na doole ci nit diirub dundam ci maanaa mi ngi mel ni jigéen juy séy yoon a ngi koy boole ak jëkkëram ñu ànd seen giiru dund waaye su jëkkër ji faatoo buum gi dagg na kon nag su jabar ji àndee ak beneen góor te fekk jëkkër jiy dund des na ko àtte njaaloo waaye bu jëkkër ji faatoo yoon jeexal na seen diggante mën na sëy nag ak beneen góor te loolu du njaaloo nii laa leen ko mën a misaale samay mbokk bi kirist deeyee dangeen a deyandoo ak moom te noonu yoonu musaa wàcc leen léegi nag yéen a ngi ànd ak keneen maanaam kirist mi dekki ngir nu amal yàlla njariñ keroog ba nu daan topp sunu nafsu yoonu musaa daana xamb bëgg-bëgg yu bon yi yëngal sunuy cër ba jural nu dee waaye léegi yoon wi wàcc nanu ci li nu dee ba rëcc ci buumam léegi nag nu ngi jaamu yàlla waxuma leen ci sàmm santaane rekk ndax loolu wees na waaye ci kàttan gu bees gi nu xelum yàlla di may ndax bàkkaar ci yoonu musaa la jóge mukk waaye moo ma xamal luy bàkkaar ndaxte su ma yoon wi waxul woon bul bëgg fi jàmbur kon duma xam luy xemem waaye bàkkaar jaare na ci ndiggalu yàlla daldi ñëw dugg ci man ba yëngal ci man xemem yu bari ndaxte ba ma xamagul woon yoonu musaa bàkkaar dañu woon nemmi ci man te keroog bi ma xamagul li yoon wi santaane maa ngi doon dund dund gu neex waaye ba ma ko déggee bàkkaar dafa daldi fudd ci man te man ma daldi dee noonu gis naa ne ndigal loolu waroon a jëme nit ñi ci dund dafa ma jëme ci dee ndaxte bàkkaar jaar na ci li yàlla digle ba ma rey ma kon nag mën na noo wax ne yoonu musaa yoon wu sell la te ndigalu yàlla dafa sell jub baax ndax kon lu baax moo ma tàbbal ci dee mukk bàkkaar a ko def ngir jikkoom feeñ dafa gis ci lu baax loolu bunt bu mu mën a jaar ba ma noonu ndigalu yàlla tax na bàkkaar fees bon ba jéggi dayoo xam nanu ne yoonu musaa ngi jóge ci yàlla waaye man yëfi àddina laa fonk te nekk ci doole bàkkaar mel ni jaam ndaxte samay jëf jaaxal na ma li ma bëgg a def duma ko def waaye li ma bañ rekk moom laay def kon nag gannaaw li may def du sama coobare nangu naa ne yoonu musaa baax na léegi nag du man maay def lu bon loolu waaye bàkkaar bi dëkk ci man moo ma ciy jiiñ ndaxte xam naa ne lu baax dëkkul ci man maanaam ci sama bindu doomu aadama am naa yéene def lu baax waaye awma kàttanu yeggale lu baax nag lu may yéene duma ko def waaye lu bon lu ma bëggul moom laay def bu fekkee nag lu ma bëggul moom laay def kon dootul sama coobare waaye bàkkaar bi dëkk ci man moo ma ci jiiñ gis naa nag lii saa su ma bëggee def lu baax lu bon a ngi ma taxawu ndaxte ci sama biir xol yoonu yàlla wi neex na ma waaye gis naa jeneen doole juy yëngu ci samay cëri yaram di bëre ak li sama xol bëgg day bëre ba noot ma def ma jaam ci dooley bàkkaar jooju yëngu ci samay cër céy maaka torox ana ku may musal ci sama yaram wii may jëme ci dee maa ngi sant yàlla am na kuy musle mooy yeesu kiristu sunu boroom kon nag lii laa gis ci sama bopp ci sama xel maa ngi topp yoonu yàlla waaye ci sama bindu doomu aadama maa ngi topp yoonu bàkkaar romsaar juróom ñett léegi nag yoon mënula dab ni bokk ci yeesu kirist ndaxte kàttanu xelum yàlla tukkee ci kirist yeesu di may nit dund gu bees goreel na ma ci nootaangeeg bàkkaar ak dee li yoonu musaa mënul woona def ndax néew doole nit yàlla defe na ko nii dafa yónni doomam ngir mu yor sunu jëmm nun ñi nekk ay bàkkaarkat te mu jébbale bakkanam ngir dindi bàkkaar yi noonu la yàlla tase nguuru bàkkaar ci nit ba tax na léegi njub gi yoonu musaa di digle am na ci nun ñiy déggal xelu yàlla mi te bañ a topp sunu nafsu ñiy topp seen nafsu seeni bëgg-bëgg rekk lañu fonk waaye ñiy topp xelu yàlla mi coobareem lañu fonk ndaxte fonk nafsu ci dee lay jëme waaye fonk xelu yàlla mi dund ak jàmm lay joxe ndaxte ku fonk sa nafsu bañaaleb yàlla nga ndaxte doo déggal yàlla mbaa ngay sàmm ay santaaneem te mënuloo koo def sax kuy topp sa nafsu nag doo mën a neex yàlla waaye yéen nekkatu leen ci topp seen nafsu waaye yéen a ngi topp xelu yàlla mi bu fekkee ne mu ngi dëkk ci yéen ku amul xelum kirist nag bokkuloo ci moom bu fekkee ne kirist dëkk na ci yéen nag lii moo am seen yaram mi ngi ci dooley dee ndax bàkkaar bi nekk ci yéen waaye seen xel mi ngi dund ndax njub gi leen yàlla jox kon nag ginnaaw xelum yàlla mi dekkal yeesu ca néew ya dëkk na ci yéen dina tax seen yaram wi néew doole dund ci kàttanu xel moomu dëkk ci yéen kon mbokk yi am na nu lu nu war waaye waxuma leen topp sunu nafsu ak i bëgg-bëggam ndaxte kuy topp nafsoom faaw mu dee waaye kuy noot jëfi yaramam ci doole xelu yàlla mi dina dund ndaxte ñépp ñiy déggal xelu yàlla mi ay doomi yàlla lañu kon nekkatu leen fa kanam yàlla ni jaam bu ragal sangam waaye xel mi leen yàlla sol ay doomi yàlla la leen def ba tax nu di wooye yàlla aba maanaam baay bi ndaxte xelu yàlla mi moom ci boppam day ànd ak sunu xel ci seede doomi yàlla lanu te ginnaaw ay doomi yàlla lanu dina nu moomi lépp li yàlla jagleel ay doomam seddu ci ngëneel yi waaye nag ku bëgg a bokk ak kirist ndamam ëllëg war ngaa seddu ci ay fitnaam tey xalaat naa ni sunu naqaru tey wareesu ko tëkkalee ak sunu ndamu ëllëg ndax li yàlla bind lépp a ngi ni seew a gis doomi yàlla yi feeñ ci seen biir ndam ndaxte duniyaa bi bépp mu ngi ci yoon wu dul mujj fenn teyu ko yàlla moo ko ko teg waaye teewul ñu am yaakaar ne yàlla dina rengi seen buumi njaam ci dee boole leen ci jàmm doomu yàlla yi ak seen ndam xam nanu ba fii nu toll ne li yàlla bind lépp a ngi metti ni jigéen juy matu te du dunyaa bi rekk mooy mettitlu nu nit nu ngi mettitlu nu ni yàlla sol xelam ngir nu ñam añu ëllëg nu ngi ne seew yàlla boole nu ci lépp li nu yelloo ni ay doomam keroog bés bu yàllay goreel sunu yaram ndaxte sunu mucc ëmb na yaakaar li nga gis ba noppi nekkatul yaakaar li teew noo koy yaakaare li fekk gisagunu nag li nu yaakaar dinañu ko séntu ak muñ te it xelu yàlla mi moo nuy xettali ci sunu néew doole ndaxte xamuñu sax naka lanu war a ñaane yàlla waaye xelu yàlla maa ngi nuy ñaanal fa moom ak yéene yu làmmiñ mënta takk te yàlla mi nettu xol yi xam na xelaatu xel mi ndaxte tinu gi muy tinul gaay yàlla yi méngoo na ak coobareeg yàlla xam nanu itam ne ñi bëgg yàlla maanaam ñi yàlla woo ci boppam te boole leen ci li mu tëral yàlla dina joo loxoom ci lépp lu xew ci seen dund ngir jula leen lu baax ndaxte ñi mu xamoon lu jiitu dafa dogaloon ñu nuroog doomam ngir mu nekk taaw ci biir njaboot gu yaa te ñi mu dogaloon loolu ci ñoom daleen a woo te ñooñu mu woo daleen a àtte nit ñu jub te ñooñu mu àttee jub daleen a boole ca ndamam lu nu war a wax nag ci loolu lépp ginnaaw yàlla ànd na ak nun kan moonu mënal dara yàlla mi nu gàntulul doomam waaye mu joxe ko mu dee ngir nun ndax dina nu bañale ci dara ñi yàlla tànnal boppam kan moo leen di tuumaal yàlla moo leen àtte ni ñu jub kan moo leen mën a teg tooñ Yesu kirist mi dee moo dekk itam te mu nga fa ndejoorul yàlla di fa ñaanal kan moonu mën a tàggaleek mbëggeelu kirist xanaa duy nattu te du njàqare du it fitna du xiif walla rafle du it ay ngaañ walla jaasi sax moo tax mbind mi ne ñu ngi nuy rey ngir yow ci suba ba jant so ñu ngi nuy jàppe ni xar yu ñuy rey waaye loolu lépp teewul ñu ngi mel ni ñay xare ci doole kirist mi nu bëgg ndax wóor na ma ne dara mënunoo tàggaleek mbëggeelam du dee du dund du malaaka yi du seeni kilifa du tey du ëllëg du boroom doole yi du li ci kaw mbaa ci suuf mbaa leneen lu ñu bind dara mënunoo tàggale mukk ak mbëggeel gi nu yàlla jox ci kirist yeesu sunu boroom rom saar juróom ñeent bëgg a wax nag ci kanamu kirist laa koy waxe dëgg la du aw fen sama xel mi xel mu selli mi leeral seedal na ma ne dëgg laay wax maanaam duma noppee am naqar wu rëy ci sama biir xol ba xaw a bëgg a tàggoo ak kirist te alku ngir ñi ma bokkal xeet mucc bànni israyil lañu te yàlla def na leen ni ay doomam dëkkaloon na ndamam ci seen biir fas ak ñoom kóllëre yi ñoom la yàlla dénk yoonu musaa ñoom la xamal ni ñu ko war a jaamoo ñoom la joxi diggam maam yàlla tànnoon ci ñoom lañu bokk te ci ñoom it la kirist wàcce maanaam ci jëmmam kirist mi di yàlla tiim lépp teyloo taraanga ba faw amiin waaye néewuma waxu yàlla dafa toxu ndaxte bokk ci bànni israyel taxul nga bokk ci israyel tigi te it du ñi soqi ko ci Ibrahima ñépp ay doomam dëgg lañu ndaxte yàlla dafa wax Ibrahima ne ko saw askan ci Isaaxa jaar maanaam soqi ko ci Ibrahima taxul a nekk doomu yàlla waaye juddoo ci biir digéeb yàlla mooy tax a bokk dëgg-dëgg ci askanu Ibrahima ndaxte yàlla dafa digoon Ibrahima naan ci waxtu wii déwén dinaa dellusi ci yow te saarata dina am doom ju góor te du ci loolu rekk waaye noonu la it ci lu jëm ci rebeka doom yi mu jur ñoo bokk benn baay moo di sunu maam isaaxa waaye yàlla wax ko ne ba rakk ji moo yilif magam esaw fekk xale ya juddooguñu te defaguñu dara muy lu baax muy lu bon yàlla def na noonu maanaam tànn kenn ci doom yi ngir dogalam mën a taxaw te sukkandikuwul ci seeni jëf waaye ci wooteeb yàlla loolu la mbind mi wax ne bëgg naa ba bañ naa esaw kon lu nu ci war a wax ndax yàlla atewul foofu yoon nag mukk dafa wax musaa sax ne ko dinaa yërëm ku ma neex laabiir ci ku ma neex dama leen di wax nag dara ajuwul ci coobareek nit mbaa ci ñaqam waaye lépp a ngi aju ci yërmande yàlla ndax bind mi biral na li yàlla wax na ne ko def naa la buur ngir feeñal sama kàttan ci say mbir te ngir siiwal sama tuur ci àddina si sépp kon nag yàlla la ko neex lay def muy yërëm nit mbaa dëgëral xolam ci lu bon waaye xanaa dina am ku may wax ne ginnaaw kenn mënula bañ coobareeg yàlla lu tax kon muy teg nit tooñ yow nag nit ki ak koo mën a doon lu tax ngay werante ak yàlla ndax mbindeef dina laaj ki ko bind lu tax nga binde ma nii ndax tabaxkatu ndaa sañu la fab banam tabax ci ñaari ndaa benn bi ngir soxla yu am maanaa bi ci des ngir soxla yu ndaw kon nag looy wax ci lii yàlla bëggoon na wone meram xamle it dooleem ci àddina teewul dafa sax ci muñal ñi yelloo meram te taxaw ci sànku bëggoon na it xamle màggaayam mu ëpp xel ci boole ñi mu yërëm ci ndamam moo tax mu tànn leen ca njaalbeen te wax ji noo ko moom nu ñu yàlla woo ci boppam ci biir yawut yi ak ci biir xeet yi ci des moom la wax ci téereb Ose ne ñi nekkul woon sama xeet dinaa leen ko def ñi bokkul woon ci sama mbëggeel dinaa leen ci boole te fa ñu leen waxe woon du ngeen sama xeet des na leen fa wooye doomi yàlla boroom dund esaayi wax na ci mbirum israel ne lu bànni israel bare bari ni suufu géej sax lu néew rekk a ciy mucc ndaxte li boroom bi dogal ci àddina dina ko gaaw a def te dina mat sëkk esaayit waxoon na lu jiitu loolu ne yàlla boroom kàttan gi su bàyyul woon ci nun lu néew kon ba tey raat nanu ñi dëkki sodom ak gomoor lu nu ci war a wax nag ñi dul yawut te fonk ñu woon jub ci kanamu yàlla léegi jub nañu ci kaw ngëm waaye bànni israel mi bëggoon a sàmm yoon ngir jub matalu ko ndax lan ndax dañoo sukkandiku ci seeni jëf bàyyi ngëm dañoo daanu ci doj wuy fakktale moom la yàlla wax ci mbind mi ne dinaa samp ci Siyon doj wuy fakktale di xeer wuy daaneel nit waaye ku wéeru ci moom sa yaakaar du tas rom saar yi sama coobare xol ci bànni Israyel ak sama ñaan ci yàlla mooy ñu mucc seedeel naa leen ne ñu farlu lañu ci jaamu yàlla waaye seen njaamu àndul ak xam-xam xamuñu yoon wi yàlla tëral ngir nit jub ci kanamam waaye dañoo wee seen pexey bopp ba tax ñu bañ a nangu yoonu njub woowu yàlla tëral ndaxte ci kirist la yoonu musaa dëppe ba tax ku ko gëm dinga jub fa kanam yàlla ku bëgg a jub ci kanamu yàlla ci kaw sàmm yoon musaa def cee wax ne ku ko mënoon a matal dinga dund ba faaw waaye ku jub ci kanamu yàlla ci kaw ngëm nii lay waxe bul wax ci sa xol ne ku yéeg ci kaw mel ni danga bëgg kirist wàcc bul waxit kuy dem ca barsàq mel ni danga bëgg kirist dekki kon boog lan lay wax lii waxu yàlla mi ngi ci sa wet ci sa làmmiñ ci sa xol te wax jooju lal ngëm lanuy waare ndaxte soo waxee ak sa gémmiñ ne yéesu mooy borom bi te nga gëm ci sa xol ne yàlla dekkal na ko dinga mucc ndax xol la nit di gëme ba tax mu jub ci kanamu yàlla làmmiñ nit la nit di waxe ne mi ngi ci kirist ba tax yàlla musal ko mbind mi dafa wax ne képp ku ko gëm sa yaakaar du tas mukk ndax ñépp yem ci kanamu yàlla mu yëwut mbaa ki dul yëwut ndax kenn rekk mooy sunu boroom ñun ñépp te ku yéwén la ci képp ku koy ñaan ndaxte bind nañu képp ku woo boroom bi ci turam dinga mucc waaye nan lañuy wooye ki ñu gëmagul te naka lañu mën a gëme ki ñu déggagul turam te naka lañu mën a dégge turam te kenn xamalu leen ko te it nan lañu mën a waare su leen kenn yónniwul looloo tax mbind mi wax ne ñi yégle xabaar bu baax bi ni seen ñëw di sa dexool waaye ñépp nanguwuñu xabaar bu baax bi moom la Isaayi wax ne borom bi ana ku gëm sunu waare kon boo ngëm ci kaw dégg lay juddoo te dégg sosoo ci xebaaru kirist waaye ma ne xanaa ñépp dañoo déggul axakay mbind mi wax na ne seen baat jolli na ci ñeenti xebla yépp seen wax wër na àddina sépp waaye ma teg ci ne xanaa bànni israyil dañoo xamul axakay musaa dafa jëkkoon a wax ne dinaa leen siisloo xeet wu bokkul ci yàlla merloo leen ci ñi xamul dara ci yàlla te esaayi takk na fitam ba wax ne ñi ma wutul woon gis nañu ma feeñ naa ci ñi ma laajul woon waaye ci mbirum Israyel dafa wax ne talal naa samay loxo suba ba ngoon ci xeet wu may bañ tey werante rom saar fukk ndax yàlla bërgël na xeetam mukk ndaxte man ci Israyil laa bokk Ibrahima te bokk ci giiru Benyamin yàlla bërgalul xeetam wi mu xamoon lu jiitu ndax dangeen a xamul li mbind mi di wax ci mbirum Iliyaas dafa doon tawat Israyil ci yàlla naan borom bi rey nañu say yonent daaneel say barab yu sell ba man kenn maa ci des te ñu ngi may wuta rey waaye lii la ko yàlla tontu dencal naa sama bopp juróom ñaari junniy nit ñi jaamuwul baal noonu itam ci jamono ji nu nekk des na nit ñu néew ñu yàlla dencal boppam ci yiwoom ginnaaw nag yiwu yàlla rekk a tax mu denc leen kon du seen peyug ñaq walla boog yiwu yàlla dootul yiw kon lu nu ci war a wax li bànni israyil doon wut gisuñu ko waaye ñi yàlla tànn rekk a ko gis te ña ca des bañ a gëm ba seen xol darkiis looloo tax mbind mi ne yàlla def leen a jox xelum nit ku gëmeentu bët yu gëlëm ak nopp yu tëx ba ci bésub tey te daawuda it daf ci wax naan na seeni ñam sax nekk fiir ak i pakk nañu ci daanu te yàlla mbugal leen nañu gumba ba ni fatuus nañu tiis ca sëgg ba faaw ndax kon dañoo tarxiis daanu ba faw mukk waaye jëllub israyel dafa ubbi bunt ngir xeeti ñu dul yawut mën a mucc te bànni israyel siis leen gannaaw seen tooñ nag moo ubbi buntu yiw ci waa àddina si te seen ñàkk moo meññ barkeb xeet yépp cey bés bu israyel gépp delloo ci yàlla ndaw barke bu bari yéen ñi dul yéen laay waxal ndegam yàlla daf ma def ndawam yónni ma ci xeeti àddina si damay matal samab yonent dama koy def ngir ñi bokk ak man xeet siis ba ñenn ñi mucc ndaxte bi yàlla génnee Israël ubbee na noonu bunt ngir xeeti àddina juboo ak moom kon su yàlla te Israël ndax du mel ni ndekkitee néew ya damay wax ne mburu mépp sel na bu ci yàlla amee wàll naka noonu garab gi yàlla séddoo reen bi garab gépp sell na bani israyil ngi mel ni garabu olive gu ñu jëmbat ci kër gi waaye mu am car yu ci fàq yow mi dul yawut yaa ngi mel ni caru garabu oliw gu àll bu ñu jabatal ci garabu kër googu noonu nga jariñoo meen mi jóge ci reen bi kon nag bul bàkku di xeb car yooyu yàlla fàq waaye soo bëggee bàkku xamal ni reen moo lay yenu te du yow mii car yaa ko yenu xanaa dinga wax ne car yooyu dañu leen a fàq ngir jabbatal ma fa ñu nekkoon dëgg la waaye seen ngëmadee tax ñu fàq leen wuutal la fa ndax sa ngëm bu mu tax nag ngay bàkku waaye nanga moytu gannaaw yàlla baalul car ya cosaanoo ca garab ga kon boog yéen itam mën na leen a fàq loolu kon wone na ni yàlla baaxe ak ni muy meree tooñ ci ñi daanu yàlla wone na ni meram tànge wone mbaaxam ci yéen su fekkee yéen a ngi ci wey lu ko moy des na leen fàq yéen itam te car yooyu fàq suñu weyul ci seen ngëmadi des na leen delloo ci garab gi ndax yàlla mën na leen cee tafaat yow mi dul yewuut yaa ngi bokkoon ci garabu oliw gu àll waaye yàlla daf la cee jële ci lu dul a am jàbbutal la ci garabu kër gi kon mën na noo gën a wóor ne yawut yi judduwaale nekk ci garabu oliw gu kër gi yàlla dina leen ci delloo mbokk yi dama leen a bëgg a dindi kumpa ci lii ngir ngeen bañ a yëg seen bopp dërkiisu xool dab na bànni israyil ab diir ba bés ba mbooleem waa àddina ñu war a bokk ci nguuru yàlla dugg ca bu loolu amee nag bànni israyil gépp dina mucc moom la mbind mi tëral bi mu naan ab xetalikat dina jóge ci siyon dàq weddi ci askanu yanqooba loolu mooy kóllëre gi may fas ak ñoom bés bu may dindi seeni bàkkaar gannaaw bañ nañu xabaar bu baax bi ay bañaale yàlla lañu ngir ngeen jot barkeem waaye gannaaw yàlla tànn na leen dafa leen bëgg ba tey ndax seen maam ya ndax li yàlla maye dootu ko nangu mukk te ku mu woo ci boppam dootu la dàq ñu déggadil yàlla ngeen woon waaye ngëmadég yawut yi tax na ngeen jot yërmandeem ñoom itam lànk nañu léegi ngir mën a bokk ak yéen yërmande yàlla kon yàlla tëj na ñépp ci ngëmadi ngir mën a yërëm ñépp xelum yàlla ni mu xóote ak xam-xamam ni mu bare baraw xelum nit kan moo muus ba xam dogalam walla nga am xel ba nànd ay jëfam mbind mi dafa ne ana ku xam xalaatu borom bi ku ko doon digal te ku ko mas a jox dara ba mu war laa delloo ndaxte ci moom la lépp sosoo ci moom la lépp di jaar ci moom la lépp di dellu moo yelloo ndam ba faw amiin rom saar fukk kon nag mbokk yi gannaaw yërmande yàlla bare na noonu maa ngi leen di ñaan ngeen jébbal ko seen yaram wépp ne seen dund mel ni sarax suñuy defal yàlla sarax su sell te neex ko loolu mooy njaamu gi leen war bu leen àddina jay waaye yeesu leen ci seen xel ba soppiku ngeen mën a xam bu wér coobereeg yàlla di lépp lu baax neex ko te mat sëkk gannaaw yàlla may na ma ciw yiwam ma nekk ndawam maa ngi leen di wax lii kenn ku nekk ci yéen bu leen yëg seen bopp waaye ngeen am xalaat yu yem méngoo ngëm gi leen yàlla sédd ku nekk ak wàllam loolu ci maanaa mi ngi mel ni yaramu nit yaram lu cer yi baree bari benn nuroowul ak moroomam liggéey noonu itam nun ñi bokk ci kirist lu nu baree bari benn lanu te danoo mànkoo kon ginnaaw yàlla séddale ne ay mayam ku nekk ak sa cër nanu koy jëfandikoo ku yàlla may ngay waare kàddoom nga wax ko kem sëngam ngëm kuy toppatoo yëfi mbooloo mi nga takku ci ku yàlla may ngay jàngale nekk ci kuy fedd li ngëmu nit ñi ci yàlla nga sax ci kuy séddoo alalam ak nit ñi nga def ko ak xol bu laab kuy jiite mbooloo mi nga sawar ci kuy dimbali ñi néew doole nanga ci bég na seen cofeel di lu dëggu te bañ a nekk ngistal araamal leen lu bon te sax ci lu baax bëggante leen ak xol bu leer ni doomi ndey te farlu ci teralante sawar te bañ a tàyyeel di jaamu boroom bi ak seen xol bépp bégleen ci yaakaaru ëllëg te muñ bépp tiis di sax ci ñaan yàlla dimbali leen gay yàlla yi ci seeni soxla te saxoo dalal gan ku leen fitnaal ñaanal leen ko yiw te bañ koo moolu bégandoo leen ak ñi bég te jooyandoo ak ñiy jooy bokk leen menn xel tey bañ a yëkkatiku di yetu daraja waaye ngeen fonk ñi suufe bu leen teg seen bopp boroomi xel bu leen fayante lu bon waaye sàkku leen seede su rafet ci kanam ñépp wut leen juboo ak ñépp ba fa seen kàttan yem samay soppe bu leen di fayantoo waaye bàyyi leen lépp ci loxo yàlla mi yelloo àtte ndax yàlla nee na ci mbind mi man maay àtte maay fay jëf waaye def leen lii bu sa noon xiifee may ko mu lekk bu maree may ko mu naan ndax boo ko defee dinga ko rusloo bu leen lu bon ëpp doole waaye noot leen ko ci def lu baax rom saar ñett gannaaw loolu ne nit ku nekk déggal ñu yore baat ci kanamam ndaxte amul njiit lu fi yàlla sampul njiit yépp nag yàlla moo leen fi teg kon ku leen bañ a déggal ndigalu yàlla nga lànk te ku def loolu yoon dina la dab kuy def lu baax warula ragal njiit li kuy def lu bon moo ko war a ragal soo ko bëggee bañ a ragal nag kon defal lu baax te dina la tagg ndax yàlla ko dénk liggéey boobu ngir sa jàmm waaye sooy def lu bon war ngaa ragal ndax du cig neen la ame jaasi yi àtte jawriñu yàlla la ngir wàcce meru yàlla ci fay ku def lu bon kon fokk ngeen déggal ko waxuma sax ndax sañ-sañam boobu waaye it ngir seen xel dal gannaaw yàlla sas njiit yi liggéey boobu te ñi ngi ci kon faw ngeen fay galak jox leen ku nekk cëram ku ngeen war a fay galak fay leen ko ko ku ngeen war a fay juuti fay leen ko ko ku ngeen war a weg weg leen ko ku ngeen war a teral teral leen ko buleen ameel kenn dara lu dul mbëggeel ndax ku bëgg sa moroom wàccoo nga ak yoonu musaa ndaxte li yàlla yépp yi deme ni bul njaaloo bul rey nit bul sàcc bul bëgge walla leneen ndigal lu mu mën a doon wax ji moo leen ëmb nanga bëgg sa moroom ni nga bëgge sa bopp ku bëgg sa moroom doo ko tooñ kon ku wéy ci mbëggeel matal nga yoonu musaa te lii itam am na xam ngeen bu baax jamono ji ñu toll jamono yeewu jot na ndax léegi sunu mucc gën na noo jige ca banu dooree gëm guddi gi màggat na bët a ngi bëgg a set nanu bàyyi nag jëf yu lëndëm te ràngoo gànnaay yi nu yàlla jox ngir dund ci leer gi ginnaaw nu ngi ci leer gi na sunu dund rafet bu nu naan sàngara ba màndi tey bànneexu bu nu njaaloo tey defi ñaawteef ak suñuy cër bu nu xuloo mbaa nuy ñeyante waaye gànnaayu leen Yeesu Kirist borom bi te bañ a topp seen bakkan ci bëgg-bëggam yu bon ñeent ginnaaw ngeen ko nangu te bañ a werante ak moom ci lu ndax am mën na lekk ñam wu nekk fekk ku ngëmam néew du lekk yàpp waaye lëjum rekk lay lekk kiy lekk lu nekk bu mu xeeb ki ko dul def naka noonu itam ku du lekk yàpp bu mu teg tooñ ki koy lekk ndax yàlla nangu na leen ñoom ñaar koo teg sa bopp ba di ko teg tooñ jaamu jàmbur la mu taxaw ci liggéeyam mbaa mu sàggane ko moom ak sangam la waaye dina jub ndax borom bi am na doole taxawal ko ci njub noonu itam am na ñiy tànn bés ak ñi yemale bés yépp na ku nekk xam bu wér li muy def te jàpp ci ndaxte kuy tànn bés mi ngi koy def ngir màggal borom bi kiy lekk lu nekkit mi ngi koy def ngir màggal borom bi loolu leer na ndax day sant yàlla te it ki bañ lekk yàpp mi ngi koy def ngir màggal borom bi di ko sant kenn ci nun dundul ngir boppam kenn deewul it ngir boppam dañuy dund ngir màggal borom bi dee it ngir màggal ko kon nag nuy dund mbaa nu dee noo ngi ci borom bi loolu sax moo waral kirist dee te dundaat ngir mën a nekk boroomu ñu dee ak ñiy dund yow nag lu tax ngay teg sa moroom tooñ lu tax nga koy xepp xanaa nun ñépp danu dul daje ji fa kanamu yàlla ngir mu layoo ak nun ndaxte mbind mi tëral na lii borom bi nee na ni mu wóore ne maa ngi dund ni la wóore ne ñépp dinañu ma sukkal te ku nekk seede ne maa yàlla noonu ku nekk ci nun dinga lay fa yàlla ci lépp loo mës a def kon nanu bàyyee tegante tooñ waaye nu fas yéene moytu lépp lu nekk fiir guy yóbbe sunu moroom bàkkaar xam naa ni amul wenn ñam wu sellul ndax yéesu boroom bi xamal na ma loolu waaye loo yaakaar ne sellul ci yow la sellul soo dee lekk luy indil sa moroom tiis génn nga ci mbëggeel yow nag bul réeral sa moroom ci sa ñam ndax kirist dee na ngir moom bu sa njariñ jur wax ju ñaaw ndaxte bokk ci nguur yàlla jotewul dara ak lu nuy lekk mbaa lu nuy naan nguur yàlla mooy jub ci kanamu yàlla te am mbég ak jàmm ci doole xel mu sell mi kiy jaamoo noonu kirist moo neex yàlla ak nit ñi kon nag nanu wut luy indi jàmm te yëkkati ngëmu sunu moroom bu sa ñam yàq jëfu yàlla bépp ñam sell na ci kanamu yàlla ci lu wér waaye képp ku lekk luy yàq sa ngëmu moroom def nga lu bon lii sa warugar mooy nga bañ a fiir sa moroom ci yàpp mbaa ci biiñ mbaa ci leneen lu mu mën a doon su fekkee sa ngëm dëgër na wone ko ci sa diggante ak yàlla kiy nangu te du ci sikkal boppam kooku barkeel na waaye kuy lekk ñam te am ci xel ñaar def nga bàkkaar ndax sa ngëm mu fa ndaxte jëf ju àndul a ngëm bàkkaar la rom saar fukk nun ñi dëgër ci sunu ngëm war na noon nangu ñi seen ngëm néew te am ci lu ñuy sikki sàkka te bañ a yem ci wut sunu bànneex na ku nekk ci nun di wut lu neex moroomam ngir jariñ ko ba mu gën a dëgër ci ngëmam ndaxte kirist musula wut bànneexu boppam loolu la ni mi wax ne lor yi ñu la saaga ci sama kaw lañu dal ndaxte lépp lu ñu waxoon ci mbind mi lu jiitu tey dañu ko tëraloon ngir ñu sàkku ci xamxam xamxam bu ñuy may fit ak muñ ak di feddali sunu yaakaar kon nag yàlla mi maye muñ ak fit ne leen may ngeen déggoo te nekk benn bu yelloog li kirist yeesu wone ba tax nu bokk benn xalaat ak benn baat ci màggal yàlla baayu yeesu kirist sunu boroom moo tax nangoonte leen bay màggal yàlla ni leen kirist nangoo lii lay wax kirist ñëw na liggéeyal yawut yi ngir wone kóllëreg yàlla ci matal dige yamu digoon maam ya ñëw na itam ngir ñi nekkul yawut mën a màggal yàlla ndax yërmandeem moo tax mbind mi ne dinaa la màggal tey tàgg saw ci kanamu xeet yépp mbind mi nee na it yéen xeeti àddina ñëwleen bànneexu ak xeet wi yàlla tànnal boppam mu dellooti ne sant leen borom bi yéen waa àddina te ñëw màggal ko yéen xeet yépp te it esayi wax na ne am na sëtu yeese buy ñëw dina yilif xeeti ñi dul yawut te ci moom lañuy wékk seen yaakaar kon yàlla mi maye yaakaar na def ci seen xol mbég mu réy ak jàmm ju yaa ci seen kaw ngëm ba ngeen am yaakaar ju mat sëkk ci doole xel mu sell mi mbokk yi wóor na ma ne baax ngeen ba fa mbaax mën a yem fees dell ak xam-xam ba mën a jàngalante mbir yàlla ci seen biir bu sama kàddu diisee nag ci bataaxal bii dara taxul lu dul bëgg a yeesal seen xalaat ndaxte yàlla ci kaw yiwam dafa ma sas ma nekk jawriñu kirist yebal ma ci àddina ci xeeti ñi dul yawut liggéey bu sell laay def ngir yàlla ci xamle xabaaram bu baax bi ngir xeeti àddina sell ci dooley xel mu sell mi ba neex yàlla mel ni sarax suñu koy jébbal kon nag maa ngi bànneexu ci kirist yeesu ngir liggéey boobu ma yàlla dénk awma fitu wax leneen nag lu dul li kirist jëf jaalale ko ci man ngir xeeti àddina jébbalu ci moom jëf na jaarale ci samay wax ak samay jëf ci ay tegtal ak i kéemaan sukkandikoo ci doole xelu yàlla mi ba fi mu nekk nag yégle naa fu nekk xabaaru kirist li dale ci yerusalem jaar ci gox yépp ba àgg diwaanu iliri sama yéene mooy xamle xabaaru turu kirist fa mu eggagul ndax bëgguma yeggale sasu keneen daloon li ma def nag dëppoo na ak li mbind mi wax ne ñi yëgagul mbiram dinañu ko yég te ñi ko musal a dégg xam ko bëggoon naa ñëw seetsi leen fekk ay teq-teq ñoo ma téye ba tey waaye nag léegi bay naa sama sas ci gox yii bu may dem Espagne nag bëgg naa fa jaar nuyu leen ndaxte ay at a ngi maa ngi am yéene ju tar ci ñëw seetsi leen bëgg na ma nekk ci seen biir ngir am bànneexu sotante ak yéen xalaat ab diir te ngeen waajalal ma sama yoonu Espagne waaye nag fi mu nekk maa ngi dem nii Yerusalem ngir dimbali ji gaayi yàlla yu sell ya fa nekk ndaxte waa Masedowan ak waa Akayi ñi gëm fas nañu yéene sàkk ci seen alal yónnee ko ngir dimbali ñi néew doole ci gaay yàlla yu sell yi nekk Yerusalem yéene nañu ko te ci dëgg-dëgg bor la bu ñu war a fay ndaxte gannaaw ñi gëm ci Yerusalem séddoon nañu ak ñu dul yewut seen ngëm kon xeet yooyu itam war nañoo seddoo ak ñoom seen alal kon nag waxtu wu ma noppee ci liggéey boobu teg may gu tedd gii ci loxoy boroom dinaa dem Espagne te jaar fi yéen te wóor na ma ne bu ma agsee ci yéen dinaa indaale barkeb kirist bu mat sëkk ginnaaw loolu mbokk yi maa ngi leen di ñaan ci turu sunu boroom yeesu kirist ak ci bëggante gi xelu yàlla mi def ci nun ngeen defal ma lii ànd leen ak man nu tuur sunu ñaq ci ñaan yàlla ñaanal leen ma ngir ma mucc ci ñi gëmul ci waa yudde te gaayu yàlla yu sell yu nekk ci yerusalem nangu ndimbal li ma leen di yóbbul dolli ci yàlla may ma ma ñëw seetsi leen ak xol bu sedd nu booloo yeeslu fa kanam yàlla na yàlla boroom jàmm ànd ak yéen ñépp amiin rom nu weesoo loolu maa ngi leen di dénk sunu jigéen febe miy liggéeyal mbooloom ñi gëm ci dëkku sansere nangeen ko jàpp ci tuutu borom bi ni ko gaay yàlla yi yelloo te dimbali ko ci lépp lu mu aajowoo ndaxte moom itam wax dëgg dimbali nañu bari ba ci man mii di wax ak yéen nuyu leen ma prisil ak akilaas samay nawle ci liggéeyu kirist yeesu ñoom ñaar dem nañu bay bëgg a jaay seen bakkan ngir man maa ngi leen di gërëm ci loolu du man rekk sax waaye itam mboolooy ñi gëm ci xeeti àddina sépp nuy leen ma it ñiy booloo ci seen kër maa ngi nuyu it epaynet mi jëkk a gëm kirist ci diwaanu asi ak maryaama mi sonnoon lool ci yéen nuyu leen ma it andronikus ak yuniyaas sama mbokk yi ñu ma booleeloon tëj am nañu tur ci ndawi yàlla yi te ñoo ma jiitu sax ci gëm kirist te fàttewuma ampliatus mi ma bëgg ci sama xol ngir borom bi nuyu leen ma it urban sunu nawle ci liggéeyu kirist ak sama soppe stakis ak it apales mi ngëmam dëggu ba yelloo kóolute nuyu leen ma it waa kër aristobul ak erodiyon sama mbokk ak waa kër narsis ñi ci borom bi ngi nuyu moom ak tirifos jigéen ñi sonn ci liggéeyu borom bi ak it sama soppe persid mi ci jeex tàkk maa ngi nuyu it rufis waa ji xolom seey ci borom bi ak yaayam mi ma féete woo nit cërub ndey te fàttewuma asankrit flegon hermes patrobas hermas ñoom ak mboole mbokk yépp nuyu leen ma it filolog ak yuli neere ak jigéenam te fàttewuma olimpaas ak gaay yàlla yi booloo ak ñoom ñépp te yéen mbokk yi saafonte leen ak xol bu laab mboolooy ñi gëm kirist yépp a ngi leen di nuyu mbokk yi maa ngi leen di dénk ngeen moytu ñi leen di féewale ba di leen jàdduloo yoon wi ci wax lu juuyoo ak dëgg gi ngeen jàng daw leen leen ba sori ndax ñu deme noonu liggéeyaluñu kirist sunu boroom seen bopp lañuy liggéeyal ñu ngi ñëw ak làmmiñ yu neex di jaay xol yu woyof yi ba leen waaye seen dégg ndigal biir na ñépp ba sama xol sedd lool ci yéen teewul nag dama bëgg ngeen am xam-xam bu leer ci lu baax te bañ a laal dara ci lu bon su ko defee yàlla boroom jàmm dina noot seytaane ci seeni tànk léegi na yiwu yéesu sunu boroom ànd ak yéen timote sama nawle bi may jàppale ci liggéey bi mu ngi leen di nuyu ak samay mbokk lusiyus yason ak sosipater man tersiyus mi bind bataaxal bii nag maa ngi leen di nuyu ci turu boroom bi gayus mi ngi leen di nuyu moo may ganale ci këram te foofa it la mbooloo mi di dajaloo eraste mi toppatoo mbir mbiri xaalisu dëkk bi it nuyu na leen ak sunu mbokk kartus na yiwu sunu boroom yeesu kirist ànd ak yéen amiin sant leen yàlla mi leen mën a saxal bu wér ci dëggu xabaar bu baax bi may waaru ci mbirum yeesu kirist nekkoon na kumpa gu làqu diirub ay ati at waaye léegi nag yàlla dindi nanu ci kumpa te santaane na ñu yégle xabaar boobu ci xeeti àddina sépp ci bi mbind yonent yi ngir nit ñi man koo gëm ba jébbulu yàlla mi jagoo xam-xam bépp moom rekk moo yelloo ndam ba faw jaar ci Yeesu Kirist amiin